toll day gone go sawar rek laa waroon am waaw gone go amul kilifa mu di ma dañ may dajante ak moom maanaam daal la mel na pour sëg daal gone jigéen ñii toog de balle balle boo sëyee tabaski ba tabaski la dem bamba gaara at ba yeah yeah <clears throat> kooku ay waay déggal mu naan xam bul wax loolu baat bee waay wuyu ma baat bi baat bee neex ay ah. eh, waay wadd wadd eh, ay asu wadd waay sant bu wér nii rek nag ma bàyyee woon ñalang ma ñal waaw waaw waay waay defal loolu yàllaa lay fay de ne ko yàllaa lay fay de ay booy waat defal loolu ca yàlla tax. Kayre waaw Kayre Kayre. ana mbër yi maa maa ngi lay seet di fële ba tey dëkkari li firi nga ne. waaw waaw waaw waaw. kookaan la. naan. barke borom eh. soloon keroog nag. alaaj sa loxo bii loxo bi lu muy wut eh, alaj kay eh. boko ko de boo ko wuy ma boko ko de boo ko defee moom ma yónne dëkk ba jaalu façon waaw waaw ok waaw waaw se te se te rappeler tout suite se te rappeler kay se te rappelle euh, kii an tuddati sax bo yoro waaw yoro nak nga baal ma waaw sama xarit nga nag. waaw waaye gis nga maanaam euh, boo du dëmm doo nooxoor. waaw waaw waaw. xeet yi nga bokk. waaw yaa ngi wax téléphone xam naa ni jigéen wala gel ngay waxal yow te sa daxal de gel ko tey ngay jàpp si tuba bi te goofe la station bi. goofe la station bi eh, bàyyil connexion bi ay dox. connexion xool yoon sama booy. bone bi ma yoroon yàlla. Eh, xam nga mooy asuwaat waaw waaw. ah kese bi de la ma jox. rendez-vous maa la wax. fee fan kii bi kii bi ne ko day cafétéria noonu rek ñee naa ko nag damay mag mënumaa dem si si ay ay ay kii a ay ay ay baration bombas ñëwal kër ga ñu def leneen def ma ñaf la si sànnaar yaa ba gën a xam naa ko woo amit naa ni rokki dinaa ko woo waaw dinaa ko bu mu ñëw parce que paracetamol yi daa bëri foofu paracetamol ya ga Efrel gaa. Efrel gaa Efrel gaa sama bopp. yow sa douze bi li ma bu mu fàttee fii ba du man maa la wooye sama mag mu mu mu la ko ko xool leen tawi hoon lan fa fekk ah. ko xool dima lan lañ fa fekk. man pël bi man sama waxtaan ak moom du neex. Efrel gaa wu parce que man nag man nag man nag maa tooñ sama bopp. parce que bi nit ñi xaritoo ki nit man. Euh, ma dem gis xeetu euh, rab bu mel ni yow. nga xam ne nituk àll ngam eh? ma dugganteeg yow. Hmm. man maa tooñ sama bopp ken tooñu ma. yow nit yu dëgg yow. waaw yow nit yu yow. jërër ko ne yow kooku du ñëw foofu kooku bombas bi du am la bombas wata bombas bi wata barke rasulillah yow do yow do yow doo teg yow alaaji del si del del rot del del del iri si del rus booy del rus xale ay fu del iri si di di di

rasulillahi xam jàng na ba yore di polomam mu yëgi këyitam ma ba mu neex ko ma ma dugganteeg man man la choisir man la bëgg ay pula waaw amal jom na yor vingt problème na yor vingt problème ku dix problème nga wax mën na yor vingt problème laa la waaye du ñëw laa la wax du xam naa sen gàlle ñun ñoo ñun ñoo bokk koñ wala da nga ay jigi dum fàtte nga loolu de man jàkk jëriñ moo indi fi mais dëkkul fii de waaw yow ba ma nga ama jàkka ji jàkka jaa lekk ko waaw lekkal jàpp yow yow lu tax yow tey ñëw julli yow. dama am ngant. ngantul leen yow yooyu. waaw dama am ngant dama am ngant. wéeruma. yow sa baay moo nekkoon imam sa baay dem na yow bàyyi la fii yow nga war a ñëw. la la sama baay du man lam man mënuma ko lam xam-xam ma ko. fam dem demuma fa. ay dimbali ma ca yàlla tax. man maa doon sama papa doon nodd ma ñëw nodd yow nga ñëw jiit. ah mais yow ngay doon jàkku bu nekkoon kenn ku ne la sa baay ne nga téye ko. sa baay ñaata na ana wërësul. ana naya. ndax yaa ngi foofu laa lu la tee dem du ma fay jot ba nga duggee ndax pour la bi ngay ñëw ndakaaru li nga yoroon si alal anam def nga ko ba lu yaas ni fi ne maa lay dimbali bu ma demul wayaas ñëw fayal la lu yaas doo fayal sa tiyaa bi dem na waaw sa tiyaa dem na may demee yaa sang yaa sang sutura sang la sutura ah si leen laa def waaw ma dama ne la nga ñëw jàkk ja loolu sang yi nga yor loolu daa daa sulli daa daa sulli yor d' accord ma je ne suis pas d' accord avec toi yow li ngay def li baax ngay wax da koy nettali du ma jaane boni boni yàkku ay waay gone yi yow soo moytuwul maanaam gone yi ñoo sawar sa euh, nu koy xeeti gone yi waxatoon dara si xale yu ndaw yi mag yi rek ñun paaye waaw parce que xale yi danoo soxor léeg nga jàpp yëkkati sa cusu ween tee gis booy euh, pele yooyu ñu yor pele yi waaw gis nga ko ni koy téeni yooyu gone yi joué football rag ah pilisseur waaw pilisseur pilisseur ay gooy gis nga boo leen joxee sa balcon yi ban téel loxo ba pilisseur loxo ah waay waay ñoo soxor si ween de laay ñoo soxor si ween. yow yow yow su ma la. waaye ween wu ne lang ni nafa bu peer su ma la rusul woon yow dama lay wax caga cagaan ka cagaan. cagaan cagaan yi mooy la. yow cagale yow caga. caga caga international caga ne yow lay mel. waaw yow yaay caga. lan laa def sa nopp yi. lan laa def lan laa def lu nduróog caga ko waj ba lumbat mi loo xam ne caga def na ko waj. mun la sàmmaloo nga topp si nay. noddu noddu léegi cagale noddu léegi cagale noddu noddu waxtu yoon na njaxaa noddu naa alaay wan a caga. alaay wan alaay. loolu man bu ma jaxasee ak yàlla. yow mi cagale yow laakum diinu kum wala diin kenn ku ne. maa ngi nii man jàkk ji laa jug. waaw seen naa la foofu ba sonn mi yaa ni ma doon. ah tal jàkka ja ma talu nga nekk di waxante kay cagga ji naan ah, ay. rendez-vous de la rendez-vous bi ñu ma jox moom a gënal euh, euh, dem sa. Euh, jàkk ja dem jàkk ji. yeggali déedéet eh, kay gënal ba waaw. waaw may demee. julli waxtu yi maa ngi koy dajale dinaa ko julli dimbali ma nag mënuma wax ji. wax ji mënuma ko yow jàkk ji nga doon jullee loolu mooy sa obstructif am rendez-vous léegi lu tee nga bàyyi jàkk ji di dem jigéen ñi man man sa xol a sa jabar ji su fekkoon man ko sa jeex de jabar ji su fekkoon soriwul biñ lee walay naa ko nettali woo ko woo ko yow maa am numéro doo woo jox ma numéro jox ma ñeme nga tas sama sëy yow rasulillahi xam ne dama koy waay parce que yow da ngaa seytaane yow seytaane nga ñeme nga waaw waaw wuy ma fils de wax ji mënu serp nar kara fak boo ma saaga ma ñaf la seen sànnaar naar yu boo ma saaga ma ñus la la yu naar